wér la xamante ni moom eh, mënti eh, kenn du ko dindi eh, bëggoon nañ mu gën a yaatu lool waaye jamono ji moo xaw xat comme ni mu ko waxee te lu dul doy moom loo ci am rek dafay daal di doy te waxtaani Cheikh Amadou Fadal moom kenn du ci doyal da nga cay am dara rek bu ëllëgee nga ñëwaat sàkkaat kon di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko guddal aw fanam bu baax a baax a baax ba lii njaboot gi di yaakaar ci moom suñu borom gën koo mën a mottali ndax wax dëgg yàlla sag la bu baax a baax ndax koo xamante ni buñ amee dara lu ñuy werante ci yoon wi dañ naan nañ dellu ci moom wax ba xam lan la ca wax kooku yaakaar naa mat naa ñaanal mu yàgg fi loolu xam naa kon sëñ Thierno kàdd gu mujj ñu tàggatoo. moom de dinaa wax na dal na sëñ Bamba rek nan na dal na sëñ Bamba buñ dàq kenn buñ roy kenn buñ ndax lu rek ko am kuy dàq di dàqoo ku dul sëñ Bamba doo ko waaye ña lay dàq duñ la seen waaw loolu la waaw waaw nee Bamba mii nag ni ngeen xam ne noonu rek ko am keneen amu ñun ko am na foo xam na day wax ci rajo bi ba mel ne kuy bëgg daal waaw sëñ Bamba mii noonu rek ko am noonu rek ko waaw nit nag nee na lu mu la gën gën gën nga sañ koo roy nan na dal na sëñ Bamba rek te buñ ko booleeg dara man nag loolaa wax mooy it man nag loolaa ci wax dama ne wax daal sëñ Fallu la war la ko war lépp def ba wu dara wax nañu dégg jëf yu gis batala looy des ci nun lay dese fallu wàcc na di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di rafet lu topp gi nga xam ne yéen a ko topp seen site bii di Rafah TV ni ñu koy defee rek di waajal màggalu Kazu Rajab màggalu Cheikh Ahmadou Fadal waajalee ko ci xam-xam waajalee ko itam ci dem ci ñi nga xamante ni ñu nangu seen xam-xam la di leen dékk suñu ay waxukaay ngir ñu bokk ak ñoom di bokk ak yéen itam li nga xamante ni moom lañu ñu fay jëlee euh, mbégte la woon mu rëy rëy ànd ak kenn ci mag yi kenn itam ci kilifa yi dëkk bi di Serigne Thierno mbakke Gelongal di ko sant bu baax a baax ci nangu gi nga xamante ni nangul nañu ko jotaay bi ndax xat na lool ci moom euh, yi sax xawoon na ko wàññi lool waaye diggam ak Cheikh Madal Fadal euh, la xamul nu mu ñuy def ba tax na. mu nangul ñu jotaay bi kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom gën koo sàmm te aar ko te yàggal ko fi lool barke Cheikh Al xam naa daal di leen di sant rek. Mm-hmm. ñaanal nag. Muntaxa mi sama guddulu fanam te yàggal yéeneem. Mm-hmm. moo rakk yeeg doom yeeg taalibe yeeg bokk yi. Mm-hmm. njabootu sëñ Fallu gii nga xam ne itam. seen fa seen bàyyi dajoon na këpp àdduna te la waykat waa wax rek nee na joxoon na bokkam yëpp seen ne àq moom sëñ Fallu mm-hmm. kenn ba fee Bamba laq kooku sëñ Fallu joxoon na bokkam yëpp seen ne àq mm-hmm. kenn teewatul ba fee Bamba laq waaw waaw du dëgg mm-hmm. waaw na seexi Bamba bëgg waaye mel naa eh. Seex Fallu santal yàlla mel nga noona waaw loolu maa ko wax tarkala kon nag ñoom ñu itam yàlla leen sama borom aar leen waaw góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi man de wax dëgg yàlla ñëpp fa ma joxe cër ñëpp fa ma jox teraange ñëpp fa ma fonk waaye kat waaye kat àggaguñ nag fa seeni bàyyi akoon naa bàyyi ndax gelaw ngal abaal la woon te boobu amul yoon amul lamp te niiwul te doom yi sëñ Bamba yi ma yi ma fekkee seen jamono yëpp gis naa leen ci sëñ Bourou Moussa la ko tàmbalee waaw ba ci sëñ Mourtada ñoom ñëpp naatu noote gën a war waaw sët yëpp gis naa fa ñëpp ñoom ñii nag hmm, wax dëgg yàlla jamono soppiku rek waaw jamono tey barke moom daa mën a soppi ñoom nag taxul sax ñuy soppiku waaye barke moom daa bar lu muy mën a soppi lool ñun nag boo nunu daal loolu ay taalibe la sëñ Omar laa wax ne ma ne sëñ Tuubaa ma ci moom dara loolu ab taalibe waaw loolu laa wax loolu mën na bokk rek dama jaayoon bàkk ko jëndi ko taalibe rek sëñ ma saa ne ma sama wax sëñ ma leen Mawro ne nii ñu danga leen fii ak bokk du fi jariñ dara ak taal bi rek fi jariñ dama bëgg ngeen joxe seen bopp te wax ko ci seen lamiñ waxal ko seen bopp te jëf ko ci seen i jëf ñooñee nee ñu ba nga leen ko waxee loole nga leen wax lañ def te man maa ngi fi te dégguma nga woo ma ci loolu sëñ ne sëñ Tuubaa ne ko noppi nga